<laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di bëggee di leen ziar leen joxati seen wàccuwaay euh, di leen wax ni naka talax-lax réew mi rakkam rakkam jéeg rukkum rukkum jéeg dajj dajji bàyyi Basiru Jomaay Jaaxaar Fay jaag bàyyi Sonko mu sell ma dama ne naka talax-lax réew mi am ngeen jàmm a ah, mbaa yabu leen dama ne naka réew mi <laughs> mise en jour en cours <laughs> nee na coono am ngeen jàmm dama ne xëree xëree xëree xëri surtout Kocc Barma ba am ngeen jàmm ma ne mbaa kenn yabu leen ah wax yàlla côté yooyu la focusons-nous encore une fois newoon naa leen talaxlax réew mi ak lay lay jeeg dajji dajji bay Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu sell ma barke yow mal xuloo jël basar dama ni mise en jour en cours waa Tambacounda neen def ma ne ko am ngeen jàmm naka talaxlax réew ma <laughs> côté yooyu la de ma ne ko ci côté yooyu la de. tey nag gars yi li ma bëgg ñu waxtaane ko mooy. mooy justice. ndax am réew mënta jag te justice ba wala yance jim jagul <laughs> te bu leen fàtte ni Baye Sonko neewoon na leen réew mi dina ko mise en jour ci faire pele développement euh, tey dañ leen di wax histoire de l'histoire de de

moo leen doon jël di leen defloo. di leen defloo loo xam ne. man mënu juge. wala sañ-sañam ci politique mayu ko ko. mais dañoo déggul parce que Ousmane Sonko waxoon na leen ko. yàgg naa wax waa justice. waaw. réew mi moomu leen ko. te ginaaru kenn nenuñu.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 ci walu politique bañu ñu ne ay bakkan rot na ci ay magistrat ko tal mais bay Sonko néewoon na len magistrat bu fi def ku fi def lu mu warul def salaw ci ngam ngay fanan wat na ko ci yalla ni di ko layo a baña layo ay magistrat yo xamanteni ni ñoo politiciens yu magi ci réew mi daanaka ñoo bokk fu ñu jàngee magistrat yi kat ma ci wax len bari na ci magistrat yo xamanteni bu ma saan dem kumpo ndaare lañuy jël néew na ci yeen ñu ñu daan raw ci ay note ci droit surtout wa joxon ko ji ndaare la daan jël ma commencé ko ci Omar Maham Diallo moom daan jëlee ndaare ndaare bi da ko daan jël ay trois fois ci benn benn benn examen moom moom dañ ko daan lim quatre fois ndaare Omar maa xam jàlloon ndaare Omar maa xam jàlloon ndaare pilis Omar maa xam jàlloo ndaare pilis pilis pilis moom bi muy jàng moom ndaare rek la daan jël te kat daa mujj doonub gis àdduna yàllaa ko moom de romba ax la takat noonu la nenne woon Baye Sonko minute minute mu wax Baye Sonko tooxi duuna te kat buy wax du jàkkaarloog mom de. yalla xam ni buñu bu ñu jàkkaarloon ak beut mu wax mako dina am lu manke ci mom man ma xam ne du jàkkaarloog yo wax lako ko bu jàkkaarloog yo wax lako nga patt beut bi de laay léegi la ñun premier ministre septième dan la tànk yi day naaw de naw du naaw du jàkkaarloog wax lako bu lako waxe nga patt beut bi de mbara piita day rek di piis kon motax tax son ko da xey rek ni len man yegg na egg na ci sama terminus. kunda day xinta du taw <laughs> maniko ci tamba kunda day xinta du taw tamba tangan ye ye ye a ah, fu ngeen jëm yalla na fa yiwu yalla jublu rek bay juge ni ben bes dama fi demon tamba kunda ndekete bon man na do mu adama lu mu xamul yeen sunu juge ye tere mani ben bes dama fi tamba kunda ndekete bon man na yóbbe doomu aadama lu mu xamul yéen sunu juge yee tere ni ngeen ñu bañee woon na ma ne ñun nu ko raw la leen bëggee na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay bàyyi juge kontaan ci yéen mbay ma ne Baye Ciss ni ngeen ñu bañee woon na ma ne ñun nu ko raw la leen bëggee yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay kontaan nañ ci yéen Baye Ciss yoo yoo yoo yoo yoo oh. yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yooya ca Tambacounda ay gan la ni bañ waxuma laa ki gis yooya ca Tambacounda ay gan la ni bañ waxuma laa ki gis bay gis master John yal na vite fait jeex Tambacounda yal na garabu yoo jeex Tambacounda tamba yi tamba yi tamba yal na garabu yoo jeex tamba yal na fit fee jeex tamba tamba la fay yoo yoo yoo yoo yoo yoo yoo yooye ca Tambacounda yooye ca Tambacounda ay gan la ni bañ waxuma laa kii siis bay siis mas ta coono hooy bay siis mas ta coono hooy bay siis mas ta coono hooy Baye Ciss Master Thiono Master Thiono Baye Ciss Baye Ciss Master Thiono Baye Ciss Master Thiono doomu Adama Njaay li nga liggéey ci àdduna moom lan lay fay yàlla xol lay fay yàlla xol lay fay yàlla yàlla dama ni Tambacounda yéen waa Tambacounda dalal leen Baye Jésus ah. dalal leen Baye Jésus Baye Jésus a ngi ñëw Baye Sonko wéef na ko Tambacounda yee leen yooyu Tambacounda yeey dama ni yee leen yooyu ca Tambacounda yee leen yooyu ya ca Tambacounda Baye Jésus a ngi ñëw vite fait yal na jeex Tambacounda ak garabu yoo vite fait garabu yoo yal na jeex Tambacounda bit fee garabu yoo yal na jeex Tambacounda ma woy mani wo nene moji baba moji bingel bone taam man général xiri mani woon nene moji baba moji bingel bone taam ay waay way leen ma dama ni bu ndey baaxee yaay baax doo bon waaye bu ndey bone yaay bon a ah, adada na ngeen def ak coono ma ni na ngeen coono yi man la xëri setum ko cumbe yi naka talax laxi réew mi dajj dajj ji lañuy lañuy bay ba siru jomay fay jeey dama ni Sénégal njaay réew maa ngi roo kuuñ puuñ bàyyi Sonko ngay wéef ma ni réew maa ngi roo kuuñ puuñ bàyyi Sonko ngay wéef man Tambacounda waaw aka ma koo xam Tambacounda ak man koo xam yooya ne Tambacounda dëgër nanu bopp vite fait mënul ci ñoom dara garabu yoo mënul ci ñoom dara ay waay waaw Tambacounda tàng na lool Tambacounda tàng na lool bàyyi juge ah, adada bàyyi juge adada dama ni benn bés maa fi demoon Tambacounda ndekete yoo man na yóbbe doomu aadama lu mu xamul ee yooye ca Tambacounda man nañoo yóbbe doomu aadama lu ñu xamul maa gane ji woon Tambacounda man xirisatub kocc bi ñu entré ma ci néeg taalal ma garabu yoo ak bit fee néeg baa nga rafet lool néeg baa nga jekkul loo ne waaw waaye def ma lu dul ba asaman sété ci route nationale bi laa kergi oh. ma laaj borom kër gi ni ko lu indi fi muni ma bi ma la talalé vite fait bi yoy dañu tak ay masque à gaz ci bir bi diri laay yoy ñu le diri yoy le diri général xëri ma ngi tup yoy ci dekk beey dañuy diri nit ndax tol na ni yo wara tol man nan li yo wara man seen kàttan bari na hi waaw bulen leen fàtte ni sonkoy jomaa yi jomaa yi sonko sonkoy jomaa yi jomaa yi sonko ah si dinaahu Usmaan sonko nun saane saane nu maane oh sonko nun saane saane nu maane Usmaan nun sonko nene mujj baaba mujj bingel bonetaama ay waayu Usmaan li mu daj ba daj ko li mu daj ba daj ko Sonko Diomaye ñaar ñi yàlla moo leen boole te yàgg na mani ni li mu daj ba daj li mu daj ba daj ko Sonko Diomaye yàlla moo leen boole te yàgg na Sonko Diomaye li ñu daj ba daj li ñu daj ba daj ko ma ne ñaar ñi yàgg na yàlla moo leen boole te yàgg na <laughs> excuse me de <laughs> excuse me de ma ne ko ci association de jeunes guitaristes guitaristes nag <laughs> ma ne ko ci excuse mii de association de jeunes guitaristes de ñu ngi may waaj a porte plainte waaye bu ngeen ci jàppul ci kaso bi laay dee bàyyi ji mi mbay doog nga def ak coono ah yaa yaa ma jàngal de wax dëgg yàlla ku ne nag ak li ngay doyee guitare ma ne ko ci ku nekk li nga koy doyee man xëri lii laa koy doyee nañ def ak coono excuse me de. Eh. damay tudd Tamba sax sama yaram bi commencé tàng moom ma ne ko ci damay tudd Tamba sama yaram bi commencé tàng en train de sentir une gravement gravement chaleur une de haute qualité <laughs> ah, ah ah liggéeyu liggéeyu ma ne ko ci liggéeyu juge de liggéeyu juge de nga waxee sax liggéeyu juge ah, ah, <laughs> ne bàyyi Sonko leen wéef wéefu leen de droit ak loi moo leen wéefu mané ko ci droit ak loi mo len excuse me de yéenewun len ko dé li dé chat la mané ko ci yéenewun len ko de tamba nuyul len ma mère Aïda Sow moo dàq ceeb Tambacounda mère Aïda saw borom restaurant ba ma ko ci nee nee leen ko xëri ko ci bang lay nuyu bu fi tibal ben gis agn nak bu fi tibal ben gis agn nañuy lek ci bolagne yi ak mboroxe yi mburu bi tapalap bi dee leen ko jox juge eh eh juge baax la ngeen ngeen am joie prudent nag waa Tamba bu dul loolu yéen ñëpp kaso bi ngeen di dee dañoo mer de waa Tamba leen nag coono joie prudent dañ leen di tëj de dañ leen di du eh juge yi rek laa yoo xamante ne avocat bi gën a mag ci Sénégal bu taxee nu objection ñu ne ko rejeté ñoom bu ñoom boo waree layeg ñoom kenn du la plaider Joy Prida de Watamba, Joy Prida. Excuse me. De. In a small table. God have mercy upon us.